ki jiite Sénégal Idrissa Seck. mais ki ko jiite moom mënul. Idrissa sekk kan nga ni mënul. mënul jubul wérul. mu ni. mënul jubul wérul. déggal lii rek. mënul jubul wérul. Macky yaa dégg waa ji. duma ci wax. ah doo ci tontu. Idi waa nga ni. mënul jubul wérul. jërë ngeen jëf mbokk yi ci seen ànd bi nga xam ne yéen ko baaxoo ànd ak Sohaybu di gërëm bu baax a baax Baye Assane Mesre di leen wax ngeen di gën di wéy di abonné fii ci seen compte YouTube ngir di mën a am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf mbokk yi xam naa fàttewu leen euh, président Sall xam naa ba léegi dañ koy fàttali nag ngir kàddoom yéen fi waxoon troisième mandat bi defe naa fàttewoo ko ba léegi président oui fàttewoo ko ba léegi oui bind nga ci sax livre. oui. ah kon baax na kon nay leer leeralal ko askan wi naan yow da ngay def troisième mandat da nga koy romandaat leeralal. sa clair que bi man maa ko bindul. ba tey fàtte woo ni wadd la ko daaneeloon mooy mbirum ruux ruuxal troisième mandat. oui. mbaa fàtte woo itamit ni li la fi teg mooy waaj a doon ruux ruuxal troisième mandat. oui.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 nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. loolu yaa ko waxoon. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. maanaam. nul ne peut faire plus de deux mandats kenn mënta def ñaari mandat yu tegaloo. donc man si sama li ma jàpp. waaw yow li nga jàpp. ak li ma gëm. waaw. li ma gëm. ay li nga gëm. mooy bu ñu ma falaatee. bu ñu la falaatee. bu ñu ma falaatee j'ai fait mon second mandat de cinq ans. d'accord lii nag président Sall mi ngi ko waxoon ci première mandat am. boobu falaate guñ ko ci deuxième mandat bi. président woon. mooy bu ñu ma un mandat de cinq léegi après mu nekk. te nekk sept plus cinq. plus cinq. sept plus cinq. maanaam cinq yi nga njëkk a def ak sept yi ngay def. sept plus cinq. d'accord léegi après. faudra partir. ah. faudra partir. yow mii. faudra partir. Bilaay. faudra partir. yaak sa coalition. faudra partir. ak sa gouvernement. faudra partir. ak say ministre. faudra partir. tàccu leen président. jaajëf waay président mbaa nii nga ko waxee noonu nga koy defee président bien doo ci dindi dara bien doo ñu war ko waaye yaa ko bind de te yaa ko proposé wax dëgg yàlla président maa ko woteelu te it yaa ko woteelu wax nga dëgg foofu lañ toll foofu lañu toll ayca moo ngi noonu la mu waxoon moom lañ ko indilaat président ngal la na nga déglu suñu kàddu yi te bàyyi ci xel tey nag ñu bëgg a waxtaanee yokk gu metti gi ci dëkk lan la ci doon président Sall si si njëg kon yokk gi yëpp ci gouvernement bi la si gouvernement d'accord lan moo tax mu nekk ci gouvernement bi. ndax gouvernement bi mooy def ay taxes. ah. ndax gouvernement bi mooy def ay taxes. d'accord ayca. yokk taxes yi. yokk taxes parce que lan. parce que li mu soxla si doxalin. li mu soxla si ay tukki. ah li mu soxla si ay tukki. waa Youssou yow doo wax ak waa ji. ah président dégg nga. Ah, ah nañ dem. Mame Gor yow lan nga wax président. ak lan. ak lan. ak lan waa léegi gannaaw ba loolu lépp amee ci réew mi nag nga ni ko waa président waa léegi dégg nga li ñu wax lépp li yuusu wax li ma wax ak li maam góor sa waa ji wax déglu naa leen waaye déglu nga ñu mais est-ce que dégg nga ñu dégg naa leen itam waa d'accord léegi wax ji ñu yamale ko fii wala ñu continuer ba tey doy na wala doyul doy na doyul yëg nga ni askan waa ngi fanaan ci ndox mi yëg naa ko yëg nga ni askan waa ngi reer ci ndox mi yëg naa ko yëg nga ni askan waa ngi ndékki ci ndox mi yëg naa ko yëg nga ni am na ñuy jaay seen bopp ngirum ndóol yëg naa ko yëg nga ni waa marché caaroy gii daanaka liggéeyatuñ ndax teer yëg naa ko yëg nga ni li ëpp ci askan wi nangoo liggéey amuñu xaalis yëg naa ko yëg nga ni réew mi ñu fi dàqal liggéey du ñu am xaalis yëg naa ko yëg nga ni réew mi sàcc si rek ñoo fiy tekki yëg naa ko yëg nga ni tamit li la mere ci sénégalais yi bari na yëg ko mbaa nga ni itamit gaañaa ngi bàyyi xel mandat bi. yëg naa ko. yëg nga ni ceeb yokk na. yëg naa ko. diwlin. yëg naa ko. ñebbe. yëg naa ko. netetu. yëg naa ko. laaj. yëg naa ko. dawlin. yëg naa ko. suukar. yëg naa ko. meew. yëg naa ko. loyer. yëg naa ko. waa léegi lii lépp nag kon lan nga ciy xaar. yéen a ngi fàttaliku ceeb yi ñu fi joxe woon nag. ma ne. yéen a ngi fàttaliku ceeb yi ñu fi joxe woon nag. non yow président yow man lay wax ay méthodes yu ne ci dëkk bii nga ni yëg nga ku nga ñuy fàttali ay ceeb yoo xam ni man ba léegi man aw ma gisuma ko ci am mbaa yëg nga ni discours yi nga di ñu dox joxe ay calmants mbaa yëg nga ni bis bu ñu duggee ci urne yi dana metti ci man mi lay gën a metti ah ci man mi lay gën a metti ah comme xam nga ko rek baax na ci kanam léegi dinaa ñëw ak Idrissa Seck Serigne Moustapha Sy ragal nit ñi ak di leen bàyyi xel wër sa tax ngay lan warul tax mu xam dëgg di ko nëbb Serigne Moustapha Sy gor piir gor piir ragal nit ñi warul tax mu xam dëgg di ko nëbb ak nu ma ko mën a waxee mënees na koo wax bien sûr donte ni dëgg nga am na ñu mu neexul. bien sûr. donte ni dëgg nga ci kilifa la jëm. bien sûr. donte ni dëgg nga dafa am ñu muy blessé. bien sûr. donte ni dëgg gi dañ koy aaye ku ko wax. bien sûr. d'accord si Malick. toute vérité n'est pas bonne à dire. Serigne Moustapha yi am na koo xam ni. am na koo xam ni du wax dëgg mukk. te fekkul ni rëy boo ko wax mu wax ko. waaye du noppi mukk. waaye du noppi mukk ci dëgg te fekkul ni rëy boo ko wax mu noppi ca. donte day naqari jërëjëf sëriñ Moustapha Sy njiital Moustarchidina wal Moustarchidaat yàlla na ko yàlla sàmm. ayca yow kii nuyool. asalaamualeykum wa rahmatulah mbokku Sénégal. asalaamualeykum wa rahmatulah mbokku Sénégal. waaleykum salaam wa rahmatulahi. Euh, sawaay waaw maa ngi lay siyaar. maa ngi leen di balu àq bu baax. war na la de. maa ngi leen di balu àq bu baax. baalul waa Thiès. maa ngi leen di balu àq bu baax. baalul sa militant yi. maa ngi leen di balu àq bu baax. baalal ñi la voteeloon maa ngi leen di balu àq bu baax baalal coalition yi nga àndaloon maa ngi leen di balu àq bu baax baalul ñi la doon jàppale tey xeex guddeeg bëccëg ndax yow maa ngi leen di balu àq bu baax baalul ñi daan saaga président Sall ak ko ak di ko critiquer ndax yow maa ngi leen di balu àq bu baax baalul ñi daan jël say discours di ko télécharger di jàngee ci yow politique tax ñuy saaga gouvernement bi baalu leen àq maa ngi leen di balu àq bu baax. d'accord comme baalu nga leen léegi nañ dem lu la fi indi. di am mbégte ci dajawaat ak yéen. ah yow kon sa baalo gi doo xaar bañ baal la nga doog am mbégte. Ah, ah demal. di am mbégte ci dajawaat ak yéen. ci waxtaanee li nga xam ni moom la ñu bokk. waaw léegi lan moo tax nga tànn tey jile thème bi bëgg koo waxtaanee ak ñun. li tax nag ma tànn ko. waaw mooy senegal dafa jëm ci guta mu ni dafa jëm ci guuta Sénégal nga wax Sénégal dafa jëm ci guuta waaye lii ngay wax saay tegoo ko fenn est-ce que Sénégal dafa jëm ci guuta Sénégal gi nga xam ne jën nañu avion bu jar ay milliards Sénégal ñi ngi gundaandaat waaye yow Idi ma yi waxal leneen waaye bis bu nekk nag ma wax leen dara ñu jóg dal sama kaw ngeen teg ci tuuti rek. léegi lan nga waxoon yow. li ma wax waxoon naa ni Macky Sall mënul. nga ni lan nga waxoon. Macky Sall mënul. ah Macky Sall yow yaa ñu waxoon ni ñu Sall mënul. Macky Sall mënul. ak lan. waxoon naa ni itam waxam wérul. mu ni. waxoon naa ni itam waxam wérul. dégguma la de. waxoon naa ni itam waxam wérul. wax na waxeet. waxati waxeet. <laughs> waa waa président yow dégg nga Idri lim la wax. <laughs> ah waa léegi looy ree <laughs> waa ah léegi looy ree doo ci tontu. du ma ci wax. ah waaw non da koo ragal rek. du ma ci wax. da nga koo da nga koo ragal rek waaye tontu. te xam ngeen ne ragaluma. non waxal ci wax ji. te xam ngeen ne ragaluma. waa sa Seck àggaleel. mais lii mu ci dolli nag. moo gën a yéeme. lan la ci dolli sa Seck. mooy réew mi ngeen ko dénk. dégluwu leen ci yéen. dégluwuñu ci ñun askan wi. dégluwu ci Touba. dégluwu ci Touba. dégluwu ci Tiwaawoon. gannaaw bi mu dégluwul askan wi dégluwul kilifa diini yi. kon fan la dem. kon ñan la war a déglu kon Idrissa Seck. force yu nekk bitim réew ñu koy sant muy def. ay force loolu laa tuddee deal international bi xew. a Seck lan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon. ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni nanga nga toujours wane sa solidarité ci sa frère. yonent bi waxoon loolu. lan moo taxoon jóg hadis bi. moo xam mu am dëgg. wala mu ñàkk am dëgg. ginnaaw bi ñu laajee sang bi alayhi salaatu wasalaam lan la tont ñu ne ko waaw nan la ñuy solidarité ak ku amul dëgg. mu ni lan. mu ne wax ko dëgg. mu ni lan. mu ne wax ko dëgg. mais Idrissa Seck jamono jii ñuy wax nag am na coalition bu mag bu juddu Karim Wade ca la bokk mi ñu jàppoon ne du nekk président fii ci biir réew mi mi ngi ñëw coalition bu saf sap kon mën nañu wax ni Karim Wade libre na. Macky Sall bàyyiwu ko. Macky Sall bàyyiwul Karim Wade. Macky Sall bàyyiwu ko. lu tax cee jox cër Tiwaawoon wala kilifa diine bu mu mën a doon. wax na lu amul. wax na lu amul. mu ne. wax na lu amul. ay waay ay nax la. ay lan ay nax la. Ah, gaawal de <laughs> waa président ah, dégg nga waa ji ba léegi de déggoo waaj ji li wax du ma ci wax ah doo ci wax duma ci wax tontu ko du ma ci wax ok waaw idi ko bëgg a sëlëme taalibe yi mais ña mu jébbalu ca ñoom ca bitim réew waaw ñooñaa ko jox ndigal mu def d'accord Macky Sall defar na Sénégal de Idrissa Seck Macky Sall def na Sénégal léegi république bananière eh waay sàmm république bananière Sénégal gii nga xam ne moom la réew yëpp di xool kenn wegatuñu ah kenn wegatuñu ah loolu yi dalaa metti loolu mooy li ma metti ma di ko wax dëgg nag bu jotee dañ koy wax rek dafa mel ni wax nga dëgg de tàccu leen idi waay tàccu non fette su leen fette su leen fett su leen idi wax na dëgg fett su leen idi waxati na dëgg idi waaw dëgg nag bu jotee dañ koy wax rek Serigne Touba bañ ko eh, idi wax nga fi sànq yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba indi sab aay ba indi sab hadis teg idi wax dëgg yàlla te gis ñu dara nag lu soppeeku ci sa yëf yi ci sa wax ji yow itam nag idi bàyyil Serigne Touba rek comme wax nga wax yonent bi te loola gis nañ jëfewoo ci dara ah Serigne Touba bàyyil wax ji rek Sall mi nga doon wax bàyyil yàlla ak yonent bi fële rek comme yow ñoom seen wax yi am mbubb nga ko jël di ko def rek di ko sol bu nga sin euh, continuer nga loo wax ci Macky Macky Sall mu ngi Macky Sall. Macky sàll mu ngi yàq Sénégal. makki mii nga xam ne saa yu guddeeg bëccëg subaak ngoon. Eh, ci luy jëmale réew mi kanam la nekk. Macky Sall mu ngi yàq Sénégal. loolu amul benn werante. Macky Sall yaa dégg loolu xanaa bii moom di nga ci tontu. du ma ci wax. doo ci tontu. du ma ci wax. tontu ci lii mu wax nee na yaa ngi yàq réew mi te man gis naa ne yaa ngi defar réew mi. duma ci wax. ah doo ci wax ba tey garaawul. Idi jot na ñu jublu ci leneen. bërki demb laa jógee Kaffrine. bërki démb laa jógee Kaffrine tase fa ak Mamadou mu jóge bi ne ma nawet baa ngi jub joxuñu ma jiw gerte gi xolleegu ko wante baaxul kon de jàmm dalugu am na engrais aw ma engrais maamam sama maam ci ndóol la dem baayam sama baay ci ndóol la dem moom nag ci ndóol laa dëkk doom ja nag sama doom ji ci ndóol la ne mbaa ay sëtam ndóol du leen fa fekk bir na ma ni sëtam ci ndóol lay dem fu ñu jëm nag yéen ngeen nekk ci kaw rek di lekk suñu alal ji fu ngeen ko teg. Eh, président may eh, Idi may ma président waa tontul ci bii boog dégg nga li ma la wax fii. du ma ci wax. dégg nga li ma la wax. du ma ci wax. tontul. du ma ci wax. <laughs> tontul. du ma ci wax. ah garaawul Idi waa léegi Idi nañ dem waa ji de nee du tontu. Sénégal am na ay doom yu ko mën a defar. bis bu ne ma gis leen. ah bis bu ne ma gis leen. di ay fonctionnaires yu xarañ. mais ki ko jiite moom mënul. ki jiite Sénégal Idrissa Seck. mais ki ko jiite moom mënul. <laughs> Idrissa Seck. kan nga ni mënul. mënul jubul wérul. mu ni mënul jubul wérul déggal lii rek mënul jubul wérul Macky yaa dégg waa ji ma ci wax ah doo ci tontu Idi Ba nga ni mënul jubul wérul Idrissa Seck mënul jubul yaa ngi répété li ngay wax de te président de la république ngay wax wax naa ko waxati ko nag lii ngay wax moom du dëgg man gëwuma ko bu doon li may wax du dëgg dana ma woolu nag mënul jubul wérul mënul jubul wérul léegi nag defar Sénégal jot na Idrissa Seck léegi nag léegi nag defar Sénégal jot na. yow moom sa wàllu wéy na ndax yow fu ñu toll nii kenn xamatul fu ñu lay classé wala man boog xaw ko waa léegi sa discours bu am solo bii lépp léegi yow lan ngay proposer Sénégalais yi. li ci jiitu nag man te ma leen koy proposer. mooy li fi Senghor defoon bàyyi. ci devise nationale. muy lan. daf ni un peuple un bu une fois mooy lan. mooy benn peuple bu am ngëm-ngëm gu wér Pastef gu wér ba noppi am ay but maanaam. maanaam daal xam fu ñu jëm. fu mu jëm ne lii bëgg naa ko maa nga dox jëm ca wuti ko. te ngëm-ngëm. ngëm-ngëm nag. ak pas-pas ak pasteefu loolu dara tëwu ko ci àddina bi. dara tëwu ko ci àddina bi. mbokk yi lii lañ leen loon tey dalaloon Idrissa Seck oustaz Alioune Sall Serigne Cheikh Tidiane Sall Maktoum ak borom xam-xam yi nga xam ne dégg ngeen leen ci biir ak ki nga xam ne moom mooy président de la république président nga ni lii lépp ñu wax nga ni doo ci tontu. du ma ci wax. te fas yéene woo cee tont duma ci wax. ok jërë ngeen jëf di gërëm Baye Assane Mesre di leen jox dig daje ci beneen waxtaan.